waaye terewul taxawaay yiñ si def wàññi na li nga xam ne moo naroon nekk jafe-jafe askan wi euh, ñu ngi ñaan yàlla nag loolu gën a jëm kanam moo waral ma ne même nawet bi ñu dégmal pour la première fois ci histoire du Sénégal gouvernement bi jël lu toll ci téeméeri milliards war ko jàppale béykat yi si wàllu engrais wàllu matériel ak lépp loo xam ne dina tax mbéy mi jëm kanam loolu nag bu amee li ci des dañuy ñaan suñu borom mu defaral ñu nawet bu barkeel su ko barkelee ñu murloo ko may sant kilifa diine yi ci réew mi di leen ndokkale ci bés bi di leen sàkku ñaan ñeel Sénégal jàmm sax fi ak teraanga ndax jàmm si la lépp xej kon loolu nag dinañ ci dox maa ngi wootewaat ñi nga xam ne moom la ñu bokkal réew mi ñu tudde leen le force vives de la nation loxo bi nga xam ne mosuma ko bank muy loxo dialogue ngir ñu xool nu ñuy waxtaanee mbir yi ñu bokk muy Sénégal waxtaan boo xam ne tam dañ koy teg ci yoon teg ko ci ni réew mi war a doxe loolu dinaa xool fan yi di ñëw ci yan anam la ñuy tàmbali waxtaan boobu ngir euh, nit ñi mën a euh, jublu ci liggéey ndax liggéey rek mooy tax en tout cas ñun moo ñu fi bàyyi te moo fi war a bàyyi képp kuy jóg di am yéene wala di yaakaar liggéeyal waa réew mi kon nag loolu maa ngi ci woo ñëpp di balu ak ñëpp te di balu ak ñëpp jërëjëf